fii gisoo leen fi attroupement donc li ñuy wax dara amu fi donc ñoo ngi nii dañu wàcc dugg ci benn kër pour mu nuyante ak ñoom donc attroupement amu fi yéen ngi gis mais n'empêche ils sont en train de nous poursuivre ñu ñuy topp boobu ba léegi vous avez vu dara amu fi oto yaa ngi nii ci tali bi di dox vous avez vu dara xew fi dara dara xew fi oto yaa ngi dox tali baa ngi nii voilà attroupement amu fi donc provoqué wuñu kenn waaw provoqué wuñu kenn. voilà de Joal Ousseynou macha allah la bëggee bu amu fii gaa yaa ngi dem di ñëw voilà ñu naan dañuy def attroupement mu ngi nii. suñu bopp ñu ngi nii di ñu topp vraiment di ñu topp te ñun dañuy wàcc dugg ci kër yi ñu ngi nii naan dañuy créer attroupement yéen a ngi gis gyrophare bi ne ce qui veut dire que boobu ba léegi ñu ngi ñuy topp di chercher à nous provoquer nous on ne provoque pas attroupement amu fi ñoo ngi nii gis ngeen. ngeen talibaa ngi nii oto yaa ngi dem oto yaa ngi dikk bloqué wuñu fenn bloqué wuñu kenn waaw. voilà ñu ngi nii y a pas d'attroupement les voitures circulent les gens sont là Ousmane Sonko mu ngi ci kër gi du guddi nemmeeku ay mbokkam donc kon dégg ngeen ko nee na faites les disperser ñoo ko déggandoo mu ngi noonu nag alors que le président Sonko moo ngi nii ci kër la dugg kër ñu ngi nii naan leen faites les ñoo ñu ngi nii yéen ko déggandoo ñu ngi ne le le commandant a dit faites les disperser ngi nii gaz bi la dëpp yéen a ngi gis yéen a ngi gis waaw yéen a ngi gis ñoo ngi nii vous avez vu Voilà, vous Voilà. On a été gazé de grenades lacrymogènes. alors que président Ousmane Sonko est à mhm. ci kër gi la dugg. oto yi taxaw di ko xaar. là le résultat ñu ngi nii dañoo gazé grenade lacrymogène mu ngi nii <coughs> c'est le Sénégal où on empêche en leader en leader un opposant de faire des tournées politiques voilà le Sénégal en deux mille 2022 ñu ngi nii te wax na ko démb provoqué wu ñu kenn dañuy dem nemmeeku Sénégal sénégalais yi defuñu attroupement suñu cortège la ñu yor defuñu dara dugg suñu oto ñëw ba ci buntu kër gi taxaw gaare mu dugg ci biir nuyante ak ñoom waaw waaw kër gorom gis ngeen ah kër gorom moo ngi nii à Joal kër gorom la dugg et devant la maison on a été gazé de grenades lacrymogènes voilà la camion de la gendarmerie ñu ngi nii voilà sama voilà voilà No, no. yaay pour ñi di seetaan live bi juste rek rappeler leen que ni dañu nekk depuis ce matin bi ñu jugee njaga ñaaw dañu ñëw Joal euh, kër gi ngeen di gis kër goro la du président Ousmane Sonko la mu duggoon fii di nuyoon teg ñoom donc gaa yaa ngi nii fekk ñu fii doon ñu grenade lacrymogène disant que on fait attroupement te gis ngeen tali bi kenn occupé ko woon amul benn foule bu fi amoon donc juste rek pour fàttali leen lii seede la ci li mu doon wax démb que ni ñun dañuy dem nemmeeku sénégalais yi moom day dem nemmeeku sénégalais yi provoqué wul kenn tooñu kenn mais gis ngeen lii weesu na tooñ fekk la nga def sa délégation di seeti sénégalais yi pour saafonte ak ñoom ñu fekk la nga taxaw droité sa oto nit ñi du jug di ñëw saafonte ak yow nga dugg ci kër gi ñu dóor leen lacrymogène c'est domage vraiment lii la ñu Macky Sall bàyyil on gaz un opposant c'est ça le régime de Macky Sall un opposant la waaw gis ngeen Sonko di def nemmeeku tour

rien que rek pour empêcher le Nemmeeku Tour c'est dommage en 2022 au Sénégal le président de la République moo ne opposant du fi def tournée opposant du dem wax ak sénégalais yi moom mooy décider kan mooy nekk fii candidat ci réew mi moom mooy décider parti politique yi nga xam ni ñooy dem mener seeni activité politique pour rappeler que démb lañ annoncé woon que ni dañuy commencer le président Ousmane Sonko day commencer Nemmeeku Tour ñu commencé ko ci département de Mbour ñoo ngi nii Joal gis ngeen kër gi la président Ousmane ko dugg pour nuyante ak ay euh, gorom ñu fekk ñu fi gis ngeen ci début bi gisoo leen benn nit wala benn ful bu fi dajaloo oto yaa ngi doon dox oto yaa ngi doon daw ci tali bi nit ñaa ngi doon doxi seen soxla ñu fekk ñu fi gazé ñu waa ji ne il faut dégager la foule une foule qu'on a qu'on n'a pas vue malheureusement c'est ça le Sénégal en 2022 où on empêche un opposant qui a le droit, la liberté d'aller rencontrer ses compatriotes et parler avec eux, leur demander leurs problème discuter des solutions qu'ils proposent pour le Sénégal ou bien à leurs différents problèmes. ñu ne noo du fi amee mu ngi nii donc di wax rek gars yi pour xam gi mu xam Sénégal fi mu toll xam gi mu xam Macky Sall ak waa këram moo tax démb mu def live Facebook def déclaration wax leen ni jàmmoo ko tax a jug nemmeeku sénégalais yi moo ko tax a jug provoqué wul tooñul waaye gis ngeen tey même pas 24 heures gis nañ résultat bi mu ngi nii on gaz les forces de défense de Macky Sall dañuy fekk ci buntu kër gazé ñu dégagé nit ñi ñoo xamante ni sax seen yoon nekku ci ñu ngi doon doxi seen soxla mu ngi nii donc pour wane ni lan moo ñuy xaar ci réew mi voilà le Sénégal bi nga xam ne 2022 fa la ko Macky Sall yóbbu waaye seen fit yee rëcc waaw nous provoque pas on ne pas la provocation waaye nag ci réew mi lañ dëkk kenn ëpp ñu fulla ak fayda kenn ëppale wuñ fi dara voilà yee ay neexal moo ci amul ay kan ay neexal moo ci amul lana amul ay neexal non non ay neexal amul ci man kenn la dimul laa comme moo dim kenn Voilà le président Ousmane Sonko qui rejoint sa voiture. Oh Voilà le président Ousmane Sonko qui regagne sa voiture donc euh, bi mu paree dugg ci kër gi nemmeeku ak ñoom waxtaan ak ñoom mu ngi nii di duggaat ci otoom. voilà mu ngi nii gis ngeen ko dugg na ko toog.

On continue le programme. Voilà, et le dispositif qui est à côté. Nos invités. Voilà. Le dispositif de nos invités à côté. Le président dans son véhicule. lii nag kenn mënu ci dara lii la yàlla dogal tey ñoo nangu dogal lii la yàlla dogal tey ñoo nangu dogal ku nangu dogal doo sonn ah yéen a ko dégg noonu ils ont encore grenade lacrymogène ci oto yoo xamante ni dañu jóge fi ñu nekkoon di ñibbi ça c'est le régime de Macky Sall buñ dee wax naan opposants yi ñooy nitu fitna yi yaakaar naa ku wax rek te yàlla tax xam nga ni nitu fitna dëgg mooy Macky Sall un opposant qui yàlla le de rencontrer les Sénégalais de discuter avec ñoo ngi nii fekk ko fi mu gaare di ko gaze ci loo xamante ni dañoo dugg suñu ay oto di dem di ñibbi voilà là on en est en 2022 avec le régime de Macky Sall voilà Touré maag Ibrahima Gueye nee na tamit nekkoon ñu ngi door a agsi nii mais gis ngeen niñ tombe bi ñuy ñëw Joal bi ñuy dikk Joal juste rek ci la gars yi ñëw wàcce fa wàcce fa déplacement bu yéeme bi ñuy dugg Joal rek kon nii moo am tey maa ngi jéw jóglu li mu moo am moo fi am kon ma ñëw ma ñëw ma ñëw. waaw ah, da ngay pousse ma teg. waaw waaw. xool nant rek xool nant. waaw ñu ngi fàttali. bu ñu ko yéen ñoo doon préparé. xool nant yow yëgul la yëgul dafa yëgul la yëgul la. ay 1 million.